campagne électorale jëm ci falum député fii ci Sénégal daal di nañ koy tàmbali ndekki ni démb ci dibeer di mu mel ni lañ ca gën a nemmeeku nag moom jaaxal na askan wi jëm ci ay xeetu ñawteef yoo xam ni gis nañ ko rawatina nag di defante seen biir ku ci mel ni ñu fare ci Abbas Fall tête de liste bu Pastef fii ci dakaar ak ñi nekk ci Barthélémy Dias mu mel ni itam rek ñooñu nga xam ni ñoom ñoo nag nekk ci langue politique bi jamono ji dafa mel ni rek. ak biiru théâtre dëgg la ñuy amal ndax foofee ca dalluwaay bu taxawu Sénégal te Khalifa Babacar Sall moom ko wala ñoom ñi fare ak ñoom dañu ko daal di taal mu mel ni loolu nag moom tax violence yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci wàllu campagne électorale yi ñoom tàmbali nañu ko ca bés ba ginnaaw rek kàddu yi nga xam ne ñoom yëkkati dañ ko foofee ca point E amitié. Bass Fall mu xamle mooy nii moom rekk day daal di defanteeg ñoom ba mu sax sàkku nañu ñu fare ak Barthélemy midias ndax du leen may dara mu ni rekk day fayantoo ndax li fi amoon ci élection yi fi weesu kon danañ ko rek defaat ci élection yi ñu jëm te mu ni kon du leen may dara.